àddina nit ku doon jàngale professeur la woon donc loolu yaakaar naa am na solo pour Sénégal am na solo pour génération yi nga xam ni ñoo fi nekk tey ak ñii ñëw ëllëg donc loolu euh, dañ ci sant bu baax suñu borom euh, di ñaanal sëñ Abdou Aziz si Al Amin bi nga xam ni moo ko wuutu yàlla may ku wér may ku kattan parce que Sénégal soxla nu ko parce que moom aussi professeur bu mag a mag kii di suñu xarit euh, bëgg Bamba Moustapha Guèye ñi nga xam ni dafa tuddee boppam bëgg Bamba di wax formule bi nga xam ni sant naa yàlla boole bi nga ma booleek Sëñ Tuuba donc sa ba dire dafa am engagement dafa dem ba jeex donc euh, mën naa wax ni kooku modèle la ci mouridisme donc euh, di wax ni bi ñu ko xamee comportement am dëggoom ak engagement am am nañu yaakaar ci fa nekk tey donc di ñaan suñu borom may ko aljana di ñaan aussi waa waa këram am xolu muñ donc euh, baat yi rek lañ ci bëggoon wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp